Heavy Mess.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 ci weeru novembre bi weesu fa ñu naan fas jaxe nekk ca commune bu Kolda aka mi ñàkk bakkanam na nee ñu dañoo toog lu toll ci juróom-ñaari fan kenn gisu ko deful it benn signe ma ne ana ñi mu dëkkaloon naka noonu ci la am xej commencé xeeñ ci koñ ba ba nee ñu sa xet googu moo dal di alerter dëkkandoo yi ndax ubale gu mu ubale woon koñ bi ku ne di laaj fu mu jógee ci la amee ay nit yu demee ci néegam dal di gis ne aka faatu na ba néewam décomposé wu ma ne dee leen nemmeeku nit ñi li nga amee nag la ñu woo sapeur pompier ak gendarmerie nee ñu ñoom sax bi ñu ñëwee état bi néew bi nekk tax na ba aka fi mu faatoo la ñu ko mujjee denc loolu nag li muy jàngale mooy réew mi bopp sa bopp gi jéggi na dayoo ndax dëkk ak nit mu faatu ba xetu néewam moo alerte alerté romb na jéggi dayo laa wax dëgg du rombi nopp dëgg la nag nee ñu aka moom kott moo dëkkoon fu soriwul lool ak fa dëkk moo tax deminam googu doon na lu méttee métti ci village bi ak ci famille bi ma ne dee leen nemmeeku nit ñi bu ñuy dund laa wax moo tax ma ne jàngoro gi dal réew mi moo gën a graaw corona laa wax SM mi nag am ndaw si jigéen la am ab jëkkëru italien waaye SM li mu defa graaw ndax dafa am jëkkër ca itali di ab italien làq ab farub sénégalem ci suuf eh? astafurlah <laughs> ma réew mi de ma ndaw si dafa doon génn ak waajuñ naan mm aji nag nee ñu ab athlète la tàgg bi rafet ba mel ni bu xarañ loo ko ndaw si gisee rek di roof coppateem mais sa xunt ndaw si nag ñu ne ngir wan ko mbëggeelam tax mu décidé ne dina yónnee mm lu toll ci juróom-ñeenti million <laughs> man de li boo ko gisee takk ñaareel tax mm mi nekkoon France jóge France dal di dem ca Italie ngir récupérer xaalis bi ma ne ndaw si ngir amam bi jóge France ñëw Italie récupérer xaalis bi rek viréel na ko transportu trois cent mille bamtuwaat ko lii bu ma koy gis di tàkk ñaareel te li gën a doy waar nag far bi juróom-ñeenti millions yi ci jëkkëru italien bi la ko récupéré ndax waa ji sibul moo tax waa ji bi mu récupéré juróom-ñeenti millions yi yëfu baadoo la dëgg-dëgg la wane ndax ba xaalis ba nekkee ci poosam la dal di wor sm yaa seexul Ibrahima Baba Lamine Dias <laughs> waaw góore waay ku wor sa jëkkër daal buñ la waree bul wax sm nag bi mu xamee ne mm war na ko ci la ko ko dal di accusé d'escroquerie dal di koy tuumal ne neuf millions yim ko jox daf ko ko jox ngir mu jëndal ko kër ca Mbuur fa ñu naan zone Sonatel waaye mm di ama bi moom dafa weddi ndax nee na sm li tax mu jox ko xaalis bi mooy daf ko ko jox ci teeyuk bakkanam moo ko gis nap ko dal di jël juróom-ñeenti millions yi may ko ko waaye ma bam duwaat ko lii moo koy gis di tàkk ñaareel li toy waar ci mbir mi nag ak coono bi ndaw si ci def yépp ngir yóbbu amam boobu noonu ci yoon yu ñu yegsee ba ci kanamu tribunal grande instance bu mbuur sm di ndaw si dafa ne nañu dakkal bépp topp bi ñuy topp mm ay way samba ba tax mm ñetti weeru sursis lañu ko mu dóor gannaaw bi mu roofee juróom-ñeenti million ci poosam ay waay waay waay waay waay waay lii nag jar naa takk ñaari léegi nag ndaw si lana tax mu dakkal poursuite yi mu doon topp waa waaw dafa gis waa ji gën a dee tax mu daggal poursuite yi wala dafa am lu muy bañ mu feeñ doonoon seen xibaaru buzz dig daje beneen yoon ci yeneen xibaaru buzz